Bienvenue sur Salam Vision. jërë ngeen jëf font siroog tibbantey tànk ak dammantey xeef gi way politique yi nekkee ci réew mi sang bu tedd ba ca Touba di sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru sàkku na ci ñoom ñu teg ko fi suuf ubbil le quotidien sëriñ Basiru Mbàkke Poroxaan mi xalifa bi yónni woon ci ñi fara ci opposition bi moo gisee ak ñoom démb ginnaaw bi mu yëkkatee juróom fukki millions yi xalif général des jagleel ñi lor woon ci manifester yi amoon ci réew mi jox ko ñi mu ko war a jox ca bi moytu fitna ndax ay ngànnaay ak ki kenn lànguk opposition bi di front résistance nationale bi ñuy gise démb ak ndaw li xalifa général des mourides yónni woon ci ñoom wax nañu ko ñoom li ñu bëgg ak li ñuy séentu ci Macky bëgg-bëgg yi yéenekaay bi nee nañu fukk la les éco nañu waa front résistance nationale teg nañu seeni exigence xalifa bi di sàkku ci ñoom ak dal ak dox luy doxal jàmm ci réew mi ñaan politique yi ku ci am yéene mbaa bëgg-bëgg nga bàyyi ba campagne jot nga wane li nga du def troisième mandat loi bi ñu fi def mu jëm ci wàllu parrainage ñu jële ko fi opposant yi nga xam ne dañ leen a xañ seen droit de vote ñu delloo leen ko bu ñu ci nuppee lijjanti coowal Petro-Tim li nga xam ne boobe ba léegi kenn waxatu lu ca jëm suur suwa xëy di leen móobe ndax jàpp na ne li ñuy sàkku ci président Macky Sall ñoom ñu koy sàkku xam nañu xel ne munta nekk wute wut ak taxaw naan Macky Sall demal aj ji weer wi indil ñu seeni exigence bari na liste ba gudd na ba mel ne bëccëg gu xëy ne mburu amul ci dëkk bi vox populi nañu li xalifa général des mourides sàkku woon ci Macky Sall réew mi di sama ñaari doom ñooy jàmmarlo waraf ci man ma ñaan leen ñu teg lépp ci suuf ku ma ko ci may ma sant ci yàlla ba noppi gërëm la te it ñëpp ko yëg ku ma ko ci bañalit ma jàppe ko noone waaye du tee ñëpp danañ ko yëg si du côté nañu fi ñu toll ni opposition bi ci réew mi yeewaat nañu te Ousmane Sonko moo leen yee moo leen dojji moo leen dolli aw fit moo tax ba ñu bari ci ñoom jógaat ngir jëlaat li ñu moom en tant que dàq séddoo ak ñoomum yóbbal ndax dafa toll ci jamonoy fexe lu indi jàmmaku dal ci réew mi te ñooñee ni ñuy doxale ak di ko waxee safaan walay jur la tribune nañu ko moytuwul it fii ak 2022 moom président Macky Sall dana delloosiwaat ci réew mi poste premier ministre ngir politique publique yi gën a tege ci yoon waaye yi nga xam ne mi ngi koy liggéey ci réew mi moom président Macky Sall moom lu ko ci gën a jàppale ndax ñëpp seetlu nañu ne poste premier ministre bi fi jëlee saafara su jur jàngoro la lu mu ko fi partenaire yi jëflante Sénégal sax loolee la ñu gis ñëpp nañu ne Macky Sall bi mu fi jëlee poste premier ministre réew mi ak léegi dafa wét yëf yi yëf yeneen mu di xibaar yi nga xam ne Mariama Sarr ministre fonction publique ak renouveau service public wax na ko ci xët mu njëkk Soleil national nee na ci diirub ñetti at yi ñu génn état bi génne na lu mat téeméeri milliards ak juróom-benn fukk rappel yi mu warloo ak jàngalekat ci réew mi kàddu soxna Mariama Sarr yooyee moo nekk ci xët mu njëkk la Sénégal yi tontul sëwru seen it bu saayam si mi ngi ci xët mu njëkk a leer A nee nañu déet mooy li ñu war a waxtaane tey jii ci suba ci biir commission politique bu dialogue national bi Fatou Kiné Ndiaye di xale bu jigéen bi jànge Maroc te ñu ne dafa benn waay bu ko joxoonub yóbbante ci yóbbante ba drogue am ci ñu jàppoon ko moom xale bu jigéen bi téye ko war ko àtte l'observateur nee nañu xale bu góor bi ko joxoon drogue bi jàpp nañu ko ci Agadir fa la ñu ko jàppee Masuxa Mbeng la tudd l'observateur nañu bi ñu ko jàppee ci la ñu xamee ne ndekete mbiri Fatou Kiné Ndiaye moo mujj moom la ñu yëg waaye li mu ko def def na ko yeneen ñetti nit bismillah mbas mi day a mbas na liggéeykat ya de def na musiba kay corona gi la tribune yéene kaa ne lu tolloo fukki junni ak juróom benn day ak juróomi téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaar seize mille cinq cent vingt sept travailleurs ay liggéeykat yoo xam ne day waa ajustement technique baa leen dal maar di taali dama ne la bu ñu sukkandikoo nag ci ab enquête boo xam ne day diggante mars 2020 ak mars 2021 gi lée lañ ko daal di kon réaliser dama ne la ministre du travail day Samba Si moo ko yeggee waaw nañu la lu tolloo junni ak ñaari téeméer ak fanweer ak juróom benn ci ay liggéeykat yéy ah mujj nañ leen a dàq maar di taali motif économique la koom-kooma amatul kon fañ doon liggéey critique yéene ne kaa seetlu nañ ne mi ngi wàññeeku nag noo mi ngi wàññeeku le témoin yéene kaa ne wàllum tuberculose gi lée waaw lu tolloo ñeenti téeméer ak ñaar ci ay doomu aadama ci 2020 ji lée ñoo dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun laa ilaha illallah ah maa dama ne la la muy rey gi reyu ko laa wax te lu jege ñaari junni ci ay doomu aadama yoo xam ne dañoo feebar ne nañu may dugg ci biir réew mi lée mën na ñoo wàlle de ay risque nga ca de critique yéene kaa ne gis nga wàllum foire bi lée bu ñu sukkandikoo ci directeur général ba Saliou Kata waaw daal milliards la ilaha illallah tey corona gi le le soleil yéene kaa ne waaye gouvernement bi xaalis bi nga xam ne kon moom laa amee loon jàngalekat ya waaw ci ñetti at yi lée nguur gi génnee loolu tolloog cent ah, waaw termine yéene gis nga poste premier ministre ba day boo sàgganee danañu ko indiwaat ci 2022 de a dee weexu ah. dana ko indiwaat de dossiers yi ci boppam kon ñoo diis ngir bañ a waxoon ne dafa bëri ak problème yi nga xam ne nag moom la nit yi jànkool daal mbirum social waaw problème wàllum koom-koom gi ak mbirum politique ba ci wàllum justice bi laa la wax dama ne la suñuy partenaire ci boppam waaw bu ñu sañoon dossiers ci boppam kon ñaari doomu aadama kon ñoo koy gérer président de la république ak premier ministre ndaxte ne gis nga palais bee ñëpp fa la ñuy ñaxtoo léegi laa la wax miiru lamentation ba dëgg la laas ne mi nga xam ne doon na dox na ci diggante opposition bi la front de résistance ba ak li nga xam ne moom procureur bu bees ak doyen des juges bu bees eh waay Samba day diis sursaane diis dëgg la def dama ne la opposition ba kay la ñuy sàkku ci Macky Sall mi mooy xanaa Macky Sall indil weer wi eh waay mbéte malaaka réew mi quotidien ne dama ne la opposition bi kay la ñuy sàkku ci Macky Sall moomee maa la koy yege bu ñu dàq procureur de la république bi la sëñ Bassirou Gueye ak doyen des juges Samba Sall ñaar Macky Sall taxaw ci kanamu adduna bi yëpp déedu def kon troisième fi dañ juróom conseil constitutionnel mi lée ak na muy dëggalee candidature na dak juróom benneel ba day mooy coowal pétrotim gii nañu ko indiwaat laa la wax coowal Franck Timis ak Alioune Sall nañu ko indiwaat coowal pétrole bi les éco yéene kaa ne waaye Serigne Mountakha tamit day waaw daal dinay xamal nag opposition bi lée ñu ànd dal rek nañ ànd ak dal rek ba noppi Serigne Mountakha juróom fukki ci ay millions day ngir njabootu ñi nga xam ne ñoom ñoo loru deful benn njàngat njàngat lu xóot ci li fi xewoon manifestation yi ci benn lecture laa la wax Sud Quotidien ne terrain politique bi nga xam ne nag maanaam ñëpp dañ coow bi lée Ousmane Sonko yëngal leen Sonko Sonko nag keroog ba mu génnee waaw ne dafa fa seenee seeti xam ne da nga ko a marre ñu bëgg ca jamono jooje Ousmane Sonko nekkee sur le terrain waaw front de résistance bi nga xam ne waa PDS dañ koo génnoon day waa kër Ablaye Wade delluwaat nañ ca biir waaw ñooñee tam ña daje ak waa M2D CRD jot na syndicalistes yi mouvement yi société civile activistes yi lanceur ak yeneen i personnalité ak yeneen i sax yéeni kaa gi ne waaye nguur gi tamit kenn demul mu des de déedéet parce que ñoom tamit doon nañu daje kon ca duwaanu Fuuta gale mobilisation évidence yéeni kaa ne waaye Fuuta day dañoo fippu de Fuutankey dañoo fippu Fuuta tampi Fuuta Fuuta Fuuta tampi Abdou Mbacké Bara Dolly day député opposition bi la dara ngir baal njiital Macky Sall mi la bu dee d'accord ne du présenté 2024 critique yéene kaa ne waaw parce que ay buntu troisième mandat yëpp dañ koo kanaar dañ koo tëj waaye opposition bi nag ubbil na palanteer Macky Sall mi la ngir bu d'accord dem daal ci 2024 waaw Macky Sall kenn du ko topp kenn du topp jabaram kenn du topp ay jegeñaaleem source aane waaye Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly day ba mu waxee loolee ba nuppi waaw Sonko da koo woo de Sonko méngoowul ak jamono ji nga xam ne moom lañ nekk nii nii nii nii nii nii nii nii déedéet Mamadou Lamine Diallo day ci tribune yéene kaay waaw nee na boo leen gisee xale yi daal di génn di manifester nii Macky Sall ko waral parce que Macky Sall ci boppam kon moo bëggoon a jël pétrole bi la ak gaz bi daal di koy aakimoo ak waa këram kër jabar ja fay fay ak Sall Sall yi waaw plan Sénégal émergent gi la daa laj Macky Sall mi doon wax ne day wutal xale yi liggéey zéro lu tolloo ñaar fukk ci ay kilifa ci réew mi la toog ci ay milliards milliards di préparer élection présidentielle 2024 dugal ay junni junni ci ay famille ci ndool goo xam ne maar di taali xale yi génn ca mbedd Macky Sall 2014 la commencé jaxa-jaxate kon suñu démocratie bi la jël wàllum justice bi la daal di ciy toog di écarter ay politiciens laa la wax soppi code électoral bi yàqate fichier électoral bi la financé ay liste yoo xam ne dafale ci élection député 2017 indi parrainage u wàllum corruption ngir tànn ay candidat lii lépp waa Benno Bokk Yaakaar ne pas tey ñu taxaw fi naan dañuy jéem a màggaloo yaay Amadou Matar Mbow moom ci ay parcelles yoo xam ne day ñi ngi xam le ne jébal nañ ko syndicat des agents des impôts et domaines ba nekk ca booru bee waadee gëlee ca almadi ngir defalee leen ko te parcelles yooyee nee nañ bu ci nekk juróom-ñaar fukki millions soixante-dix millions lay jar yëpp nekk ñaari milliards ak téeméeri millions laa la wax waaye Mame Boye Diao directeur des impôts et domaines ñu ne waaw ana nga waxal ci lii source année ajaar élection locale ya day waaw dogal ba tey ji suba lay wàcc Dakar Times ne non dogal ba kay wàcc na élection locale yi day dañu koy ajaat kon ba 2022 eh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 Bienvenue sur Salam Vision.